mbooloo mi yéen ñëpp euh, ñu leen di nuyu di leen ziar di sant yàlla bu ndax dañoo sumboon liggéey boo xamante ne ñu ngi waaj jëm ci cëppaandaw gi ñu di si félicité suñu ministre délégué régional ñu ngi lay ñaanal lépp li nga xamante moom dañ la sasoon yàlla nga ko dépasé te dépassement bi it yàlla na tombeek lépp nekk loo xamante ne lu mucc liggéey bu mucc ayib moom la àndal ñu ngi lay euh, dellu di euh, yóbbante ci ñi nga xamante ne ñoom ñoom la fi teewal leen la population de Touba ñu ngi seen gannaaw ni ko honorable euh, monsieur Sadak waxee léegi ah triomphe moom ñu fi tax a toog triomphe moom moo tax ñu génn di dox si naaj yi di recevoir nit ñi kon triomphe boobu yàlla nañu ko yàlla may ah dañu recommandé woon le candidat Amadou Ba ñu koy gën a recommandé na gën a toppatoo nit ñi bañ a weddi kenn ni que nit ñi di waxee Touba et la première ville ah du Sénégal kon nañ leen gëstu bu baax lépp lu ñu war a am ñu am ko te lépp nag nekk dans les règles de l'art et dans le respect aussi ah ñuy suñu mbokk jigéen ñi képp koo xamante ne euh, république moom moo la régir ah, ndeyu daaraa ngi ci kanam ñu ngi sant bu baax suñu première dame Mariam Faye salle bi nga xamante ne moo yàgg accompagner jeune féminine bi ba ñu mun a taxaw mobiliser à ce point ñu di ci femme département wu euh, euh, Mbacké bu région bu Diourbel ak toutes les régions ah, du Sénégal di euh, exhorter ki nga xamante ne moom la le futur candidat de la notre coalition ki mu nekkal ndax nee chaque derrière grand homme se trouve une grande ñu ngi exhorter soxna Bili moom it mu gën a ubbeeku ci jigéen ñi nga xamante ne dina déglu ñoom ñëpp seeni ay recommandation déglu ñoom ñëpp seeni ay métit mu ñu mën a dem ci élection yoo xamante ne yu paisible la yoo xamante ne triomphe dañ ciy jëlee loolu laa ne woon dinaa ko dolli tey ci sama ay kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ko xamante ne ñëw nga fi yéeneem ëppoon na joxe li mu joxe ci ay parrain man loolu man wóor na ma waaye gannaaw yàlla nii la ko doxalee nañu dolli di sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax bàyyi àll si la maa ngi lay sant aw ma sa ngërëm yal na la yàlla defal jàmm defal la salaam defal la tawféex ñu gën a exhorté suñu ministre de la femme Fat Diané na gën a dellu si ci département de Mbacké pour financement wu jeunes yi ak financement wu jigéen ñi bu defee mu wóor ñu ne. lu ñu bëgg dinañ fa àgg incha allah rabbi monsieur délégué on vous remercie